bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Eh, dellusiwaat nañu di leen nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen baalu àq di baal ñëpp ñaan yàlla mu boole nu jéggal di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sun borom yàggal ko fi lool te wéral aw yaramam. di leen eh, yëgal rek ak a fàttaliwaat eh, ci jataay bi muy bis bi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal muy bésub sant Serigne Salihu te ñu di ko amal at mu jot. Ah, ñu am ci ndigal nag du jóge ci kilifa gii di sëriñ alxaaji Mbàkke xaadimul xadim ndax ñu ngi leeral ni rek bis bi li ko waral mooy conférence bi nga xam ne daan nañ ko def ci gone yi mokkale ah, yiy jàng ci daara ji moom lañ ko daan yëgal ba bis ñu dem yëgal ko ko mënuñu nañ seet beneen bis buñ ci dolli ndax bis yi lu mu gën a bari rek gën a baax ndax dara génn ci lislaam waaye dara génn ci liggéeyal sëriñ bi ñu amoon ci nag ndigal loolu tax ñu noon saa bu ñu demee ba am gone yi mokkal alxuraan ba tari ah ñu gën a jël loolu def ko mu nekk bisib sant Serigne Saliou mi nga xamee ni kat ndigalul daara ji ci moom la bàyyi ko woon yàlla dogal na daaw bis bi amul ndax yi nga xam ne mooy xew-xewi jamono ren nag incha allahu rabbi ñu fa yéene ko jàpp def ko muy le 10 juillet ci weer wii nu nekk ni mooy samd bii nu dëgmal di ko defee nag fii ci bayaalu unité cinq bi di ko fàttali mbokki jullit ak mbokki taalibi yëpp nin ko baaxoo woon def nag bu ñu demee ba tàkkusaan jot incha allah ci lay tàmbali ren defuñu ko mu fanaan waaye tàkkusaan gi lay tàmbali ci diggante jàngum alquran bi ak durus xasida ak kuréel yi ba ginnaaw timis incha allah rabbi nag ki lañ fas yéenee nag wéyal tamit eh, njàngum rajas mi ak waxtaane eh, sëriñ bi ak li nga xam moom mooy liggéey bi ak it gone yi nga xam ne mokkal nañ ci alquran ñu wane leen ci jox leen yi tamit seeni lijaasa yi nga xam ne am nañ ko fi jànkatu xasida yi nag ku ñu xam-xam ñi ak ñoom muy jànkatu kuréel yi jànkatu aw jànkatu rajas yi ñëpp la ñu woo ci bis bi ak waxtaankat yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di waxtaane sëriñ bi ñoom ñëpp woo nañ leen ci bu ñu demee ba 22 heures bi nag kilo la sëriñ Xaadim Géey fas yéene jël nag yeggale li nga xam moom moo des ci guddi gi kon daal ñoo ngi kii woo ñëpp ndax amoon nañ yéene kenn ku ci nekk ñu ñëw ba fa nga nekk ñu yëgal la ko wala ñu jël suñu téléphone woo xëy na am na ñun ko ci def xëy na jenn jëmmit mënut a matale lépp waaye nag képp koo xam ne gis na sunu kàddu rek na xam ni ñu ngi lay woo ci bis boobu te di ci xaar bokki taalibe yépp ndax niñ ko baaxoo defee rek incha allahu rabbi noonu lañ ko fas yéenee weele ren yi tamit bis bi niñ ko baaxoo def saa buñ ci yeggee wut jëmm yoo xam ni danañ leen ko dara jaale ku ci mel ni nag ren ñu jël sëriñ naar jenn moom sëñ Yuusu jenn moom Cheikh Isaa jenn doon sunu nit ku baax ku bëgg daara ji koo xam ne ñun ak moom yàgg na lool muy jëflanteeg ñun yoo xam ne sax xëy na mënuñu koo leeral kon moom ah jëfam rek ci daara ji moo waral ñu delloowaat ko loolu ak sunu jàmbaar ji nga xam mooy sëñ Moustapha Fall moom tamit nga xam ni la muy jëf ci daara ji tekkiwul ni ñu suñu daar rek la koy def waaye mbooleem daara ju mu xam rek te loxoom yegg fa maanaam ma nga fay dem di fa di fa di fa jëf kon kooku yi tamit loolu moo nu booleeg moom ba gannaaw ñun amuñu lu dul alquranul karim ci alquran jooju moo waral muy jëf li muy jëf ci daara yi bu ñu amee bisub alquran buñ ko wooteel war nañ ko dara jaal waaye war nañ koo wane ba ñëpp xam ni kat am na ñoo xam ne ñu ngi def lu baax ba dëgg ni ak soxna Aminata sekk moom Serigne Salihu nga xam ne moom ku ko xam-xam ko ci bëgg Serigne Salihu moom it loolu moom moo nu boole kon ñooñu la dara darajaale bis bi waaye nag mbooleem jànkatu xasida yi ak suñu kilifa yi nga xam ne am nañ leen ci ñëpp ak suñu koñ beek ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi di di ñaan yàlla yegg ci ak jàmm te suñu borom defal na ci lu kawe kawe kawe bu ko defee daayira yi nga xam ni tamit ñoo nekk ak ñoom moo xam ci koñ bi moo xam ci gox bi moo xam ñi nga xam ne xam nañu ñëpp rek unité 1 ba 26 Cambérène Fadia ñëpp ñu ngi ñu ngi leen si woo rawat na ñi féete wàllu organisation bi muy daayira nooree Nurayni ak daayira Maam Jaara yi kon yàlla nañu ci yàlla yeggale ak jàmm di di sant bu baax a baax a baax a baax di sant waa jàmm ji ñoom tamit nga xam ni lii rek mooy seen ittee lépp loo xam ne xam nañ ko rawat na yëngu ci daara ji wala luy yëngu ci lislaam daan fa dem dekk fa seen micro ngir yaatal ko kon ñoom it ñu ngi leen sant bu baax a baax ñaan site internet bi yàlla suñu borom yokk ko mu gën a jëm ca kanam kon daal bis baa ngi noonu ñoo ngi ki woo ñëpp samedi insha allahu rabbi yàlla nañ ci yàlla yeggale te weesale na ko te nu am ci lu kawe kawe suñu jort barke Seexul Xadiim jërë ngeen jëf Mustafa Amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na be